assalamualaikum mbokk ya xarit yi wa Prestige TV ngeen and ko sen si 3 prestige ah ñu dellu siwaat ngeen ko gisee rek ci sen émission pat ni ba légui mu nga xamanteni moy la santé maanaam wér yaram gi fekk ci len ba ci biir kër gi tay nak pej mi dafa ñew fi nga xamanteni mom ak hôpital régional and ak nak ay nit ñu xarañ tay duma len wax sama gan mom xamna ni mom xamna ni wër bi yépp mom lay dara andal àndal xamé ni ci tata mu ah mom lay dalal tay Euh, si si beneen beneen beneen beneen aspect boo xamante ni dañ ko war a dañ ko war a traité ànd seeg aussi suñu sœur euh, Maam jaara Fall. Mhm. aussi moom it mu nekk fii nga xamante ni moom mooy ci collectif des femmes pour la défense de la de la famille. Mhm. donc moom la ñoom la ñuy dalal fii tey ma bàyyi leen rek ah sama tata moom mu def présentation. Euh, asalaamaaleykum waaleykum salaam auditeurs yi di nuyu soxna Maam jaara di nuyu waa Thiès Prestige di kontaan di am mbégte di dellu si waat bi tey mais nag si yeneen anam.

kon di ngeen xamante ne aspect bi mu fi doon ñëwee ak bu tey bi euh, du dina uute donc euh, ñu ci ànd ak ñi nga xamante ni moom mooy le réseau sigil jigéen ñi ah si sama wareen wàll gi nag maa ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy soxna Mame Diarra Fall moom it nekk relais ci li nga xamante ni mooy collectif maam Mame Diarra euh, asalaamaaleykum waa bokk auditeur u Prestige TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk seen ak seen sant di nuyu soxna si dalal bu rafet bi ngeen ñu dalal di nuyu di nuyu sama yaay soxna Mounina Wade tay nak ñu ñëw représenter fi COFDEF COFDEF di collectif des femmes pour la défense de la famille di courriel bu ëmb jigéen ñi ngir di taxawal seen wér gi yaram ak seen droit COFDEF aussi mën nañu euh, def collectif la bo xamni mi ngi membre ci réseau sigil Jigéen bo xamni yépp yëpp jigéen ñi leen tax merci beaucoup. jërëjëf maam Diarra sama yaay. Ah. lan mooy taxawaayu réseau sigil Jigéen yi. waaw euh, réseau sigil Jigéen bari lay taxawaay parce que ñun suñu liggéey dafa yaatu. <laughs> Mhm. Euh, mu nekk ñu ah, comme nii programme boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la mhm. mais ñoom ñu am programme mu droit et démocratie mhm. mais ñu am yeneen programme ci lutte contre la pauvreté mhm. mais yeneen ak yeneen programme itam ñu ëmb ko ci biir kii parce que lépp luy sensibilisation alphabétisation yooyu yëpp nekk na loo xam ne nii réseau Siggil Siggéen da koy liggéey mais nag itam ñu am programme bu yaatoo yaatu boo xam ne ni dafa jàpp ëmb xale yi surtout si période bii nga xam ne période Covid bi. Mhm. mais itam ci ay ngay wax santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mhm. ñu ànd seeg suñuy partenaires. Mhm. yoo xam ne ñoo ñuy jàppale si loolu. dinaa xëy na ma dellusiwaat si. mais partenaire bii dafa nekk partenaire spécifique. li ñuy wax euh, euh, fondation Just for. FGS fondation waaw c'est pratiquement euh, c'est pour Just Society. c'est un mot anglais. Just Society Society. waaw fondation Just Society. Uh-huh. c'est en fait programme boo xam ne nii dafa jàppale xale yi pour ñu sukkandiku si wàllu santé de la reproduction. Uh-huh. Euh, loolu moo ko tax a jóg daal. kon dégg ngeen ko noonu ni mu ko présenté te ñu ngi ci ànd ak ay partenaires yoo xam ne ku ci mel ni fondation Just Society donc mais moom dafa nekk ci volet bi nga xamante ni moom mooy volet santé maanaam wàllu wér-gu-yaram gi moom lañ ko jox moo tax tey kon suñu émission santé aussi di ko ci dalal kon hmm. euh, euh, li ñuy wax rek mooy lan mooy santé la reproduction tontu maam Diarra maam Diarra moom moom loolu yaakaar naa ndax mooy <laughs> maam Diarra lan mooy santé de la reproduction comme tey santé la ñuy wax wér-gu-yaram gi la ñuy wax ah waaw comme niñ ko waxee santé de la reproduction moom mën nañu mooy wér gi yaramu xale yi ci bi mu juddoo ba ci ni muy nekkee njagamaar wala janq njagamaar bi mooy maanaam fi mu tàmbalee ci fukki at ak ñeent jàpp ci fukki at ak juróom-ñeent des fois mu dem ba ñaar fukki at ak ñeent foofu nag dafay dafay dafay daal di laal ci wér gi yaramam ba ci ni muy demee bay commencé di procréer di jur en passant par lage de la puberté

ak imbi ak fa mu wasine topp xale bi mais itam ba i xaar ki nga xam ne nekk ñu ménopause mhm. yëpp ci santé de la reproduction la ëmb mhm. très bien kon gis ngeen ko kon santé de la reproduction donc daal mooy dundinu euh, nekk nu doomu aadama bi nga xamante ni mooy ci wàllu wér-gu-yaram loolu yëpp kon dafa la santé de la reproduction mais tey Mame Diarra lan moo ko fi tax a toog mu ngi nekk ci ci li nga xamante ni euh, mooy santé de la reproduction bi nga xamante ni dafay laal euh, ndaw ñi mhm. maanaam les ados les jeunes maam Diarra. Mhm. nan ngeen gën gis-gis ngeen am ci ci ci kii waaw SR SRAG mhm. léegi bon gis nañ ni ndaw ñi feebar yu bari mi ngi leen di dal bu ñu màggee fekk lu ko waraloon ba ñu nekkee ndaw mhm. xëy na seen toppatoo boobu foofu desoon na ci seen wàllu wér-gi-yaram ci seen wàllu lekkin ak ci seen wàllu nekkin ci biir loolu teel a sëy yi mi ngi ci mariage précoce ñàkk euh, lekk lekk gu seen mi ngi ci toppatoo bu wér bu yaram bu xale bi ci ni muy nekkee ndaw boobu yooyu yëpp da koy da koy laal bu ko defee nag soo màggee nag effet yooyu yëpp daal di feeñ ñëw nag ci yeexitalu njur gi loolu lépp xam ngay effet la ñu mën a doon moo tax ñun ci suñu ci suñu volet dañuy sensibiliser ñi ci santé de la reproduction ci âge bi ñu ko am noonu maanaam 10 ba vingt 24 ans ñu mën a caytu seen i wér-gi-yaram seen seen santé ba nga xamante ni que ñoom bu ëllëg yenn feebar yu saw sawaan yi ñuy yi di dal suñu mag ñi yëpp ñu mën cee mucc daal loolu la mais yaa ngi yaa ngi wax euh, par exemple ci li nga xamante ni moom la mooy mariage précoce yaa ngi wax alimentation mhm. mais boo nee jeune rek dafa am benn benn aspect boo xamante ni mooy ñëw muy li nga xamante ni mooy la sexualité précoce mhm. maanaam te a sëy bi nga xamante ne xale yi dañuy dañuy sëy yow moom ban taxawaay ngeen ci am ñun bon à notre niveau ñun dinañ jéem a def des plaidoyers mhm. des sensibilisations ngir xamal suñu xale yooyu ñuy tàggat lan yan yan jeexital yu yoo xam ne daal désiré wuñ ko ñoo am ci teel a gi ndax teel a gi yow mën naa dem ba boo teelee say say euh, nuñ koy waxee say organe du matagum doo xam waxuma la dara mees doo sax maturagul pour pour xam te dégg gis nañu suñu ndaw yi ñoom dañuy fowee sex sexualité. dañ koy fowee dañ koy fowee. à basage dafa mel ni loolu day mel ni que loolu lañ leen jàngal. donc ñun daal ñu ngi ñaax suñu ndaw yi

bu ñu nee suuf saa nga yëngatu nga ne nga teg sa tànk defe naa ne âge boobu moom la ñuy wax âge puberté muy âge boo xamante ne âge boo xam ne tourment tourment la si dund. Oh. doomu aadama yéen naka ngeen di defee xale yooyu. waaw xale yooyu c'est que âge boobu sax nag léegi li ñu gën a jaaxal nag mooy dafa wàcc. Mm-hmm. ndax bu njëkk xëy na nag nit ki daan na dem ba 14 ans noonu la ñu ko définir woon. Mm-hmm. mais léegi li ñu seetlu am seetlu bi ñu am mooy que ni xale yi euh, bu ñu demee ci euh, fukki at ak ñaar. Mm-hmm. rek nañu fóot. gis baax boobu mm-hmm. ñuy am boobu la ñuy natt si ku jigéen ki ne kii kat nekk na si aaju couverte si ku góor ki mu fi nga xam ne mu ngi jàpp fukki at ak ñeent boobu la ñuy jàpp aaju puberté mm-hmm. mais itam si aaju puberté boobu am na ci lenn ay mandarga mm-hmm. yoo xam ne moo nekk ci biir maanaam ci xale bu jigéen bi régis règle baa ngi fa sax weer nag nga mhm. mais itam xale bi dañuy xool ne dafay commencé di affirmer wu mhm. maanaam bëgg di jege góor yi bëgg jigéen ñi di góor ñi di ko di wane boppam daal di wane boppam mooy ku góor ki ku jigéen ki mhm. mais ku góor ki itam baat bi dafay changé mais nag bu ñu demee ba tuuti sax dafay gént mais bala moo gént yooyu sax nag itam moom it day bëgg di jege xale yu jigéen ñi. lan lay gént day gént di. lekk day gént di naan ak moroomam. ah d'accord donc loolu gént di sëy boobu nag. dana am mandarga bu mu génn dina dem ba. am niw sax dina génn sikki moom donc loolu la xale yu jigéen mat na mat na góor mat na te day wane nag ci société bi ne mat na góor mhm. mais mat boobu ñuy wane nag boobu nag la ñuy nekk ñun nag ñu am ci taxawaay en tant que li ndax booba lañ leen soxlee ci centre yi pour di leen tette mhm. ndax léegi gis nekk xam na ne jamono changé na mhm. la nga xam ne bàjjan daka daan jooy si kër gi amatu kër yi léegi yaay moo fa nekk ak papa léegi yaay ak papa amatuñ ko léegi ci lañuy soxla relais yu mel ne ñoom maam jaaraak ñooñu euh, di leen dem di waxtaan ak seen i morom ak ñooñ pour que ñoom ñu mën a changer comportement mhm. adopté comportement yi nga xam ne mu ngi fi woon ci cosaan te tegoon ko fi mhm. mais ñu nit ñu am ci rôle mooy itam ñoom bu ñu demee ba tële mhm. ñu bëgg ñu leen référé ci centre yi pour que ñu di leen accueillir di war a mën a waxtaan ak ñoom pour ñu abstinence boobu ndax comme ni ñu ko wax abstinence mooy li ñu souhaité mais am nañ yeneen pexe yoo xam ne war nañ ko mën a teg seen loxo yoo xam ne mën nañ ko jëfandikoo ba li nga xam ne ni moom la ñuy daw maanaam mën nañ ko xëy du dara lu préservatif préservatif boobu noonu ki nga xam ne waratu mën a téye boppam war na mën a ñëw ci centre bi jël préservatif pour jëfandikoo pour mën a dem. mais da koy tere. diine da koy tere diine en fait diine da koy tere waaye nag su naree dem ba yàqu li ñu naan euh, gàcce gu gàtt moo gën gàcce gu gàtt gu ndax xale bu naree dem pour jël infection mu jëlee fa leneen ak leneen ñu yóbboo rek mu ñëw jël préservatif ba nga xam ne du jëm infection mm-hmm. waaye nag bu ñëwee centre bi itam ñun li ñu njëkk a moom que ni mooy mu abstinence bi waxaat abstinence waxaat abstinence ba muy ñett su ne mënu ko ñu sokkaan ak aar pour ko bañ defi pour mu jël bañ fi jële feebar kon ñoo ko déggandoo noonu comme ñoom wax nañ seen rôle maanaam du ñu ñëw rek xale yi jël leen rek exposé leen noonu ci li nga xamante mooy méthode contraceptive yi ñoom am nañu rôle boo xamante ne waxtaan la mm-hmm. am na boo xam ne mm-hmm. boo xam dañuy jàngal xale yi di leen yee ci li nga xam ne mooy seen wàllu seen wàllu wérgu yaram mm-hmm. donc kon loolu am na solo buñ demee na bëta bëta di ñaan yàlla yàlla buñ fa egg kon noonu ah léegi nag ñuy ci loolu te boobu nag dafa am lu muy indi. Mhm. mooy li nga xam ne moom la ñuy wax naan grossesse précoce. Mhm. taxawaay bi. Mhm. waaw tëggoogu nag mooy liñ mooy li mu ko waxee kon continuité lay doon mhm. tey jii soo téyewul sa bopp xam nga li lay xaar mhm. xam nga sànq mi ngi ñëw ci préservatif yi préservatif yi li tax mu am solo mhm. yow tey jii boo doon nekk di def naka sodul noonu di def de rapports sexuels peut-être préservatif yooyu mën na la préserver ci les IST les infections sexuellement ah, transmissibles ah, ñoo ngi fi en pagaille di circuler te malheureusement nos jeunes en souffrent léegi nag grossesse précoce yooyu la am malheureusement mi ngi rey suñu ndaw ñi suñu moroom yu yu bëree bëri parce que comme ni ma ko waxee sànq mhm. dañuy toll ci âge boo xam ni mhm. ils n'ont pas encore la maturité seeni nature matagoul pour pour pour créer même des enfants. Il y a un enfant qui enfante un enfant. l'âge de procréer. waaw mhm. l'âge de procréer. Mhm. su ko defee nag yeneen yeneen feebar yaa ngi fi moom moom ko gën a xam moom mu ci sage-femme mm. d'état civil. waaw tàmbali na conséquence grossesse précoce. waaw grossesse précoce moom uh-huh. parce que ben mooy xale bi li mu ko waxee cëram matagul. Mhm. cër bu matul la bu ëmb. loo xam ne nii moo ko loo warul nekk foofa donc loolu euh, li ñuy wax psychologiquement itam xale bi parewul mhm. parewul pour jël maanaam physiquement xale bi parewul pour jël ëmb psychologiquement psychologiquement maanaam mentalement xale bi parewul xale bi parewul ñàkk a boobu nag dina am yu muy jël ndax cër ba mhm. Mhm. pour jël ëmb cër boobu boo ci boo ci ëmb bu nekk mën na teppe xotteeku ca wasin ba day xotteeku mën na sañe maanaam nàcc nàcc bu jéggi dayo ci ëmb ba ci ci ci wasin ba mais dina am ba mën na faat sax bakkanam Eh, ci xale bi nga xam ne moom la ëmb itam mhm. xale bu juddoo mhm. ci cër yu matul la nekkoon mhm. kon boog bopp bi du nekk ak moom xel mi du nekk ak moom te du nekk xale boo xam ne li ñuy wax du intelligent te mën xale bi ci judd ba sax mën na ci faatu mais yaay ji itam li ñuy wax ay fistule mën na ko si jëlee maanaam euh, euh, xëttaloo bi nga xam ne xëttaloo bu tuñurukaay moo koy def ak kanamam ak sawukaay bi wala xëttaloo boo xam ne bu tuñurukaay da koy def ak fi muy génne te lool ku nekk xam ne jigéen ju mu topp daanaka yàqu nga parce que itam dootoo mën a nekk si jamono ndax fooy toog da ngay tooy sa wala ngay génne wala ginnaaw kër di génn si yow foo ah, toll mu wóor la ne xet gu naqari ngay nekkee sa jamono daal dootul neex mhm. ndax koo xam ne dañ ko isolé socialisation sax socialement mhm. dootoo néew na nekk si jamono ndax dootoo mën a nekk ak kenn mhm. donc mu nekk ay conséquences yoo xam ne dafay topp xale bi topp ci doom topp topp itam xale bu ndaw bi ndax xale bu ku nekk boo bëggee boo juree doom yaakaar nga li ngay bëgg mooy mo raw si say na mo ñoñam mm. waye nak xal jur doom joo xam ne foo ko fekk da ndàdd mm. yaakaar naa ne kooku kenn ko kon su ko wala mujj ci faq man wala lenn loo fàq li yi nga xamne ñoo ngi ci mbedd mi mm. yaakaar naa ne kon souhaité wu ko kon bok lolo tax dal euh, teel eub bobu dal daal te bu doon suñu sago quand même même teel maye doom bi tax itam ñu daan teel mais teel maye bi tax mu ngi fi te bok na li nga xamne réseau Siggil Jigéen xar na si pour di ko pour que loolu baña am kon mbokk yeeg xarit yéen a ko déggoo li moo nekkoon suñu première partie ànd ko ñi nga xamante mooy waa réseau Siggil jigéen ñi tey yi euh, thème boobu lañ indiloon ah di wax ne taamu ni la sa naa ne li ngeen fi nii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp li ci ma ci jàpp may mooy grossesse nekk na loo xamante ne ay gàllankoor la li nga xamante ni nga xamante ne da nekk ci li nga xamante ne mooy la santé de la reproduction des mhm. waaw dernier mot rek moo du di ñaax mhm. euh, jeunes yi mhm. di ñaax euh, pour benn euh, population bi pour que ñu ñëw jeune yi ñëw di fréquenter les centres des adolescents euh, fréquenter centre nag taxuta nekk lu bon mhm. taxuta mais au moins njàngat la parce que ñun dañ fa nekk pour di leen jàngal di leen yee di fréquenter itam des réseaux euh, des relais yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñoom ñi nga xam ci population bi mhm. di sensibiliser parce que yaakaar naa ni ci programme bi yamuñu rek ci def émission rajo mhm. def nañu lu mat fukki causerie ak juróom te yaakaar naa ne daawit def nañu lu mat fukki wala amuñu woon émission rajo waaye def nañu fukki causes rek juróom woon daaw daaw def ay session de dialogue yoo xam ne dafay permettre ñu waxtaan te yaakaar ne yeneen ak yeneen thème dañ koy développé waat mais li ñu wax rek di ñaax quand même les jeunes là pour que mu nekk pour ñu am euh, mhm. bii ñu nekk dafa nekk contexte Covid. waaw donc émission bu ma waxee itam. damay dellu rek Covid il faut ma Covid tuuti rek. mooy itam fu ñu toogee at jën yooyu ndax nee nañu jën yi kat ñooy wàllu loolu la ñuy bëgg a wax Covid donc ñu ngi leen di ñaax pour ñooñu def lee ci geste barrière mhm. porter masque tey raxasu quand même pour ñu aar sa pudñe mais nag di leen remercier itam euh, waa Thiès Prestige parce que xëy naa bu du woon yéen lii du mën a nekk di remercier le directeur en passage mais di remercier itam suñu président du réseau Sigid Dieng madame Sabiène Diop bi nga xam ne nii moom ak suñu partenaire ñoom ñooñu yombal ba tax ñu mën a toog ci plateau bi mu di waa FGVS kon ñoo ko déggandoo defe naa ni taamu xaj na ma ah, léegi nag mu ngi noonu taamu ni na moom lañ dalaloon tey li nga xam ne waa réseau civil yi ngeen ak ki nga xamante ni mooy soxna Mame Diarra Far bokk ci li nga xamante moom mooy collectif pour la défense de la famille ah, donc ñoom lañ dalaloon tey mm-hmm. suñu première émission di leen xaar ci beneen beneen partie merci